wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmil yaqin wa baadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi tàmbalee sunub nuyoo ci cheikh Mouhamadul Mountakha mi yor drapeau càng gi toogal fi cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul noonu la ñuy nuyoo itam ak ziare Serigne Moustapha Fall muy Serigne Amdi Moodu Mbenda ñu tooge jotaayu maam cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine mu mel ni am nañ mbégte mu rëy. mbooleem ku yaakaar Cheikh Ibrahima Fall wala mbooleem koo xam ne mi nga wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah am nga tey ji mbégte mu mu mel ne itam yoonu marit yoon la woo xam ne sëriñ Touba dafa daan wax ne sama tey ju ne dafay gàccaal sama démb waaye bisu tey wane na ko bis bii nag ñu ci sant ak a gërëm Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Xaadimu Rasul mi nga xam ne nag mooy jëmm ju tedd ji nga xam ne moo tax ñu am bis bu toll nii muy bisu sant Serigne Touba waaye njukkale ko maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine mu mel ne kon Cheikh Ibra daan woote di sant Serigne Touba waaye tey Serigne Touba woote di sant Serigne tubaa di ko njukkale Cheikh Ibrahima Fall mu mel ne kenn mos koo dégg ci yoon kon dañuy sant Cheikh Mouhamadou Mountakha jëf ju réy ji nga xam ne defal na ko Cheikh Ibrahima Fall donte boppam la ko defal. di am mbégte ndax tey bu ñu toogee fii ci Daaru Minam kër Cheikh Mahamadul Bachir di kër Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di fi waxtaane Cheikh Ibrahima Fall wërta jaaxal kenn ndax lu bari loo xam ne ñu ngi koy naan muy jógee ci njabootu sëriñ Touba ñu koy xamee ci maam Cheikh Ibrahima Fall bokk na ci lu bari loo xam ne dikk na ci téere bu ñuy wax mi nanu baaxil xaadim te Cheikh Mouhamadoul Bachir kon dafa mel ne namp gi mu naan nampoon ci Serigne Touba jege mu ko jege woon namptal gi mu taloon ci boppam ba lu bari ci Serigne bi mu xam ko taxoon na mu doonoon ko fonk maam Cheikh ba lu baree bari ñu di ko naan ci moom ñu ko xamee ci Cheikh Ibrahima Fall kon tey bu doomam toogee muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha toogub jotaayam tooge Serigne tubaa di sant Cheikh Ibrahima Fall kon ñi nga xam ne xam nañ tuuti ci démb mbégte lay doon ci ñoom waaye du doon ak jaaxle ci ñoom li mu woote nag dafa doy waar ndax sikkar la woote te loolu ay addis rot na ci alxuraan yi dikk wax ci Sëriñ Tuubaa mi nu dajaleet wax ci ndax boo xoolee Abu Hurayrata radiyallahu anhu daf ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaal yaqulu llahu taala anna inda channi abdi bi wa anna maahu isa sakarani fa in chakarani fi nafsihi chakartuhu fi nafsi fi nafsi wa in chakarani fa in fi mala in chakartuhu fi mala in xayri minhum mutafaqun alayhi abi hurayrata radiyallahu anhu dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na sunu borom mu kawe mi dafa wax ne man yàlla maa ngi ci li sama jaam njort ci man maa ngi ànd ak moom it saa yu ma tuddee moom sama jaam bu wéetee tudd ma man yàlla danaa wéet tudd waaye su wéttali ko tudd ci mbooloo man yàlla dinaa ko tudd ci mbooloo mu gën mbooloo ma ma tudd te hadis bi mel na ne borom xam-xam yëpp dañ cee dëppoo ku mel ne Abdullahi bin Busayrin radiyallahu anhu moom itam dafa wax ne anna rajulan xaala ya rasulullahi inna shara'i'a al islam xad kashurat alayya faqbirni bi shay'in atashabbashu bihi xaala laa yasaalu lisaanu ko ratban min shikrillah rawaahu tirmidi moom itam muy abdullahi ibnu busrin radiallahu anhu mu wax ne dafa am jenn waay ju wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent bi yàlla ba sariatul islaam lim digle daa bari te man ma bëgg nga wax ma ci benn boo xam ne dinaa ci mën a sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu saw làmmiñ dañ mukk ci di tooy ci tudd yàlla te defe naa ne loolu alali maam Cheikh Ibrahima alali Baye yi lu ca gën a tuuti tuutet aw làmmiñam ci loolu rek lay tooye jaabir it na ne an radiyallahu anhu ne xaala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul afdalu shikri laa ilaha illallah rawahu tirmisi mu ne jëlee nañ ci jaabir radiyallahu anhu mu wax ne dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne li gën ci tudd yàlla mooy laa ilaha illallah ca wayoo maa ngi naan ko moo moo jox cëram sikrullah mi gën mu dee si wax billah yoonam wi moo di ismullah waaju ci tabbi daal di raw sëriñ bi nga xam ne nag tey moo woote woote sikrullah wooteel ko Cheikh Ibrahima Fall babul muridina muy Serigne Touba dafa wax ne amma dawaamu sikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yaksiru xat zalika bila israari wala ubaali bi inkaari wa kullu man saalani fali jawaab xabla wala tujaadilu ahlul kitaab moom Serigne Touba mu wax ne lépp ab murid di def di ko bare tudd yàlla ci gën daldi ne man sëriñ bi maa wax loolu te ba ma koy wax nëbbatuwuma dama ne fan te faaliwuma ñuy ñiy weddi te képp ku ma laaj ne ma li tax nga wax loolu danaa la wax ne la am naa sa tontu dama naan la demal nga yëri la ankabut ca aayay 44 45 ci li di wax ne ci jëkk xisbu wala tujaadilu ahlul kitab wala sikrullahi akbaru ngay njëkk a kon loolu mooy li ci Serigne Touba wax mu am nag mbir mu doy waar moo xam ne it daf cee dikk ndax yeneen bi sallallahu alayhi euh, wa sallam dafa wax ne euh, am na malaayika yoo xam ne dañuy wër ci suuf. jotaay yi nga xam ne mooy jotaay yi sikar yi buñ ko gisee nag dañuy firi seeni laaf bam mu daj asamaan su jëkk ñu toog déglu bu nu fa jógee nag sunu borom laaj leen ne ana fu ngeen nekkoon te it laaj boobu yàlla mi leen koy laaj moo leen ko gën a xam ñu ne ko kat ñu ngi woon ci sa jaam yi nga xam ne dañ loon sikkar mu ne sikkar soosee ana luñ fa doon def ñu ne ko dañ la doon ñaan sa àjjana ju neex ji mu ne ndax ñoom dañoo mas a gis àjjana ñu ne ko déedéet ya subhaanahu wa mësuñu koo gis mu ne ñoom ndax dañoo xam àjjana ñu ne ko déedéet subhaanahu wa taala mu ne ñu koo gisoon wala ñu xam ko ana naka la ñuy def mu ne ko xanaa gën koo bëgg gën koo xemmeen ak gën la koo ñaan sunu borom ni leen sawara moomu ñu may ana lu ñuy muslu ca jotaay ba ñu ne ko dañuy muslu sawara mu ne sawara moomu ñuy muslu ndax dañu koo xam ñu ne ko déedéet subhanahu wa taala mu ne buñ ko xamoon ana nu ñuy def mu ne gën a moytu ak gën a ñaan ci mucc ci sawara mu ne musal naa sama jaam yooyu ci sawara soosu sama sawara soosu sunu borom dellu laaj leen ñu ne ko ah mu ne kon tàbbal naa leen may naa leen àjjana te musal naa leen ci sawar ñu ne ko ah subhanahu wa taala jotaayu sikkar ba de am na ñu fa ñëw ñoo xam ne indiwu leen woon dañ doon seetaan si rek dañ caa yam mu ne jéggale naa leen ci daraja ñi doon sikkar kon loolu day tontu la seex Ibrahima Fall daan wax ne ah bu ñu tudd turu yàlla yooyu boole kook tëgg sama xiin nii dana woo góor ak jigéen am na ñooñ tëgg maa leen fa indi waaye sikkar indiwu leen foofu waaye buñ àndeek sama taalibi yi ànd ci turu yàlla wu sell woowu ba tàmbal leen ak jant kon waxi yàlla rek la Cheikh Ibrahima Fall doon dëggal moom mel na it sëñ Mountakha Albachir euh, euh, xayru ummatin uxrijat linnaas nga xam ne dafa wax ne kuntum xay ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wala tanhawna anil munkar mu ne yéen de yéenay xeet yu gën ci nit ndax da ngeen di digle lu baax tey tereelu lu bon te it suñ borom subhaanahu wa dafa waxoon ne dee leen digle lu baax tey tere bon bu ngeen ko defut danaa xiir ñi gën a bon ci yéen ci ñi gën a baax ci yéen te bu boobaa ñi gën ci yéen bu ngeen ñaanee du ma nangu Cheikh Mouhamadoul Mountakha nag musta tànqam na ci wenn wax du saa yi jógee digle ndigalal yàlla ak yonente ak sëriñ bi musta juyóom ndigalam saa yu jógee tereeb la tax waral ab tereem mooy tereeb yàlla akub yonentam ak sëñ Tuubaa kon loolu mooy suñ jotaay tey di mbégteem bépp murit di mbégteem bépp saadex di mbégteem booleem njabootu Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon ñuy tuub tey jéggulu ci kàddu yu guddi wa rahmatulah jërëjëf mu doonoon maa Ibrahima Fall moom Serigne Cheikh Fall Mboor moom Serigne Aliou Fall Mboor mu maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëfati Fall.